salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki na ngeen def ba ngeen fàtte abonné bés kolos bi ñu ngi ci ñetteelu saar bi suuratu nisa mooy troisième bi saaru jigéen ñi nisa mooy tekki jigéen bismillahi rahmaani rahim bismillahi maa ngi tàmbale si tur yàlla arrahmaani mooy yërëm waa àddina bi yëpp arrahimi mooy yërëm ko neex si àllaaxira yaa ayyuhan naas nit ñi ittaqu rabbakum ragal leen seen borom allazi mooy ki nga xamante ne xalaqakum moo leen sàkk bu dee xamu kan mooy seen borom mooy ki nga xam ne moo leen sàkk min nafsin waaxida si benn bakkan muy aadama ñun ñëpp si aadama nañ jógee dañuy faral di wax naan doomu aadama wa xalaqa minha zawjaha mu sàkk ci aadama soxnaam ci muy lan xawaa wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa mu sàkk ci biir ci aadama ak xawaa ñu ay njaboot gu bari ay góor ak i jigéen wattaqullaha na ragal yàlla allazi mooy ki nga xam ne tasaa'aluuna bihi wal arxaam day laaj niñ doxale woon ak mbokk niñ doxaloon suñu mbokk suñu diggante ak suñu mbokk am na xadisu boo xam ne si yentu salaa la jógee mbokk ba yàlla sàkkee ni ñëpp mbokk dafa jóg taxaw ne yàlla maa bëgg nag ku ma dog nga dog ko suñu borom naa la ko may nañ la lool ku la dog dañ koy dog kon dog mbokk baaxul inna allaha naka yàlla kaana aleykum raqiba li ngeen def yëpp suñu borom xam na ko mu ngi koy gis te teewul mu leen boole ay malaaka muy bind li ngeen def lépp watul yataama amwaalhum na ngeen jox jërimi seeni alal wala tatabaddalul xabisa bi tayyibi bu leen jël seen alal ju bon ji di ko wecceek alalu jërim bi nga xam ne ne lu baax li ngeen wecceekoo seen alal ju bon ji wala takuluha bu leen lekk alal jërim bi wala takkul amwaaluhum ila amwaalikum bu leen jël seen alal di ko dugal ci biir alal jërim di ko lekk innahu kaana xuuban kabira bu leen ko defee te xamal ne loolu bàkkaar bu mag la waaye na xiftum boo leen ragalee an laa tuqsitu ba ngeen bañ a màndu fil yataama ci jërim fankixu na ngeen takk maa taaba lakum bu dee am soxna boo xam ne jërim la moo amoon alal ngeen ragal ne boo leen ko takk ne lekk alal ji bàyyi ko mu dem ngeen bàyyi ko mu dem te takki keneen fankihu takk leen maa taaba lakum lépp lu leen tey min nisaa jigéen ñi bëri nañ dem leen takk beneen jigéen boo xam ne nii du jirim te doo leen ci am àq boobu masna wa sulaasa wa rubaa mën nga am nga duraa takk yow góor am nga duraa takk ñaar ba ñett ba ñeent mas naa wasulaa sa rubaa wa in xiftum bu leen rek ne doo leen màndu nag an laa taadilu doo leen mànd waa waaxida takk leen benn soxna aw malakat ay maanakum wala jaam bi nga xam ne ni yor nga ko sa kër jaamu jamono bu amoon na waaye léegi jamono ji amatul aw malakat ay maanakum wala jaam bi nga yor daalika adnaa an laa taawulu loolu moo gën si yéen ngeen di bañ a màndu waxtu nisaa sadaqaati xinna neex la na ngeen jox jigéen ñi seen can ba mat ba nga xam ne day doon may boobaa fa intib na lakum bu dee dañ leen may can bi jigéen bi daf la mujj may can bi an say in minhu nafsan fakulu hani an maria bu dee daf la may can bi mën nga ko lekk ci xel mu daal leew na la lekk ko mu des ak jàmm wala tutu sufahaa amwaaluhum amwaalukum bu leen jox ñi nga xam ne ni dañu am dañ papa dafa gaañu ay jirim seen papa gaañu waaye nag seen xel des na mat bu leen jox alal ji ndax ñoom seen xel matu ba leen ko jox alal ji dañ koy yàq allati jaala lakum fihi xiyaaman bi nga alal ji nga xam ne mu ngi seen loxo seen borom moo leen ko dénk pour ngeen gàdde ko xam nga pa man nga nekk ko xam ne mbokkam ko jekkati woon alalam nga téyel kooku ne na nga ko téye bu baax ngeen nag ngeen kenn jox war suxuhum ngeen warsagal leen ci comme bu dee dañoo xiif nga jox leen ci ñu lekk wax suuxum ngeen jox leen ci ay yére ñu sol waxuulu lahum xawlan maaruufa ngeen wax leen wax ju jekk bu rafet bañ ko nag yàq alal jàmbur bi waabtalul yataama na ngeen nattu jirim yi <coughs> xool ba xam fu seen xel toll xataa ya xataa isa balaxu nikaaxa bu ñu demee rek mat am jëkkër jirim bi jigéen bi demee ba am jëkkër nga xool ne gis na xelam mbat na fa in anastum minhum rusda nga xool ne gis na xelam mbat na amul benn problème mu xel fa dafa'u ilayhi amwaalum na ngeen leen jox seen alal ndax léegi jànq la mën na jànq mën na sëy jox ko alalam wala taakuluha bu leen ko lekk israfan di ko yàq aw bidaaran wala di njëkkante pour alal ji yeex an yàq boroo balaa muy màgg naan xaaram profité lekk ci alal ji balaa màgg bu leen def noonu man kaana xaniyan koo xam ne nag dafa yàlla da ko fekk mu am omal waaye mu téewoon alal jirim bi falestafi bu mu ci laal dara bu mu ko lekk wa man kaana faqiran koo xam ne nag dafa nekkoon ku ñàkk yàlla def na amul alal fal yàqul bil maxruf na ci lekk lekk bu jaadu boo xam ne nii du ko yàq du ko kii na si dund di si jox xale bi muy dund moom it fa dafaxon ilayhi amwaal mi leen delloo seen alal nag jamono bu ñëwee ba màgg nañ leen delloo seen alal fasidu na ngeen wut seede aleykum si yéen kenn wut kenn sedd si yéen wa kafa billahi xasiba suñu borom nag doy na xisaab yowmal xiyaam bu leen ko matul yowmal xiyaam suñu borom den leen xisaab baax na jërëjëf